ñëw mu faj aajaaj aouzu bismillah inna waliyallah wa ma tawfa billah xaw nu ko yaa maxeen wa bika nastahin mbokki jullit ñi mbokki lislaam mbokki Sénégal mbokki diaspora eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar gannaaw buñ jullee ci yonent bi bàkk suñu borom kañ ko rabul izzati azza wa jalla eh, ñuy faral di def ay live ak ay vidéo ci youtube bi naka jekk bu yàgg ba léegi te jublu ci eh, xamle lu néew ak lu bari li xam ci yokk suñu ay yiw yokk suñu ay tuyaaba yokk itam euh, al amrun bi maxruuf euh, nga xam ne lu ñu gis ne am na njariñ rek loo xam ne woyof na nit ki mën koo jëfee nga xam ne suñ ko waxee nit ñi mën koo jëfandikoo duñ tàyyi mukk di bokk ak yéen di ko wax tey dañuy waxtaanee loolu ñuy wax al barakatu wolof di ko wax barke alpulaar barke arab di ko wax la bénédiction nga xam ne al barakatu dañ ne jundun min junoodi laa yursaluha lima yasha soldaar la ci soldaar suñu borom yi dafa mel ni yàlla ni mu tàggatee malaaka yi noonu la ko tàggatee mu nekk soldaar wax boo xam ne Euh, yusaluha li ma yeesa yàlla moo koy yónnee ko soob ci jaamam ñi ko soob rek mu defal la barke waaye nag am na ay yoon yu nit ki jaar ak lu muy moytandiku ak euh, nu ngi koy sàkkoo ba yàlla defal ko ko mu ne fa isa xalat fil maal su yàlla coobarewoo barke ci euh, alalu nit ki fisa xalat filma su ko defee ci alal mu ne kasartoo da koy bëri su ko defee ci sa alal moo xam nga am ay nag nekk sàmmkat walla nga nekk nappkat wala nga nekk menuisier wala mécanicien wala nga nekk commerçant loo mën di doon rek wala nga nekk ab jàngalekat su ko defee ci sa alal alal ji lu mu néew néew su ko ci defee da koy day day day ful day mëna a faj aajo yi mëna a defar lu bëre bëre mëna motalé manam lim yu manké mu wa fil walat aslaxtahum su ko defé itam ci sa ay dom day nek ay salih manam dañu wax amalu saalix daf leen di yomb day nek ay salih ñu bax ñoo xamné euh day nek ak njub dañuy nekk ci li yàlla gërëm dañuy am njariñ tam ci àdduna li olof di wax naan euh, doom su baaxee doomu ñëpp la boobaa da day nekk doomu ñëpp ndax day am njariñ doomu aadama yëpp mu ne wafil jës mi su ko defee itam ci jëmmi doomu aadama xuwatuxo da koy may kàttan day mën lu bëree bëree bëri nit ki dana gis da nga gis dundam barkeel ba ci dundam mu mën lu bëree bëri loo xam ne su fekkoon ne du du li yàlla def ci moom dundam gi du mën a réaliser loolu nga xam ne du sonn ci jëf lu baax du sonn ci sàkk lu baax du sonn ci tëj doomu aadama yi ci di leen jëfal lu baax bu fekkee yàlla def na barke ci jëmm nit ki noonu lay mel maanaam day réaliser lu bëree bëri ci dundam ci lu baax mu ne wasil waxtu su ko defee ci waxtu doomu aadama bi hum ratuhu euh, dana waral ci moom itam waxtoom dund mu dundal ko ci ay waxtu yi nga xam ne du sàggane dara ci ay waxtoom fu mu toll rek mu ngi liggéey su liggéeyul mu ngi si jaamu yàlla ak laaya biir ak nekk seen yitte mu ne wa fi xal bi as xattuhu su ko defee itam ci xol doomu aadama moom barke Euh, dina waral euh, mu nekk koo xam ne xolam day mucc naan xal buñ salim suñu borom daf koy defal mu am xol bu mucc xol bu texe kon dañuy indi yi nga xam ne mooy maye barke yi nga xam ne mooy maye barke lañuy indi comme wax nañu barke su nee ci doomu aadama li mu ko mën a jural yépp léegi juróom-ñett yii dañ ne samaaniyati asbaab jalbu wa mafatihil baraka samaaniya juróom-ñett yoo xam ne dañuy sabab ci nit ki ñoddi ak ubbeeku ci baraka mooy dana may nit ki mu am barke bi ci njëkk al miftaaxul awal tilaawatul quraanul karim tilaawatul quraanul karim xaalaaw taala wa haza kitaabun anzalnaahu mubaarakan nee na alquran moom yàlla ñoo ko wàcce te barkeel ko képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo da am barke bismillaahi taala fal quraanul karim jàngaloo laahu taala baraka yàlla dafa def barke ci alxuraan bañ ko ba sax def gi mu def barke ci alxuraan tax na moom alxuraanul karim wàcce gi ñu ko wàcce ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tax na mboolem yonent yi moo leen moo leen moo leen féete kaw moo leen jiitu ci yàlla moo tëj yonent yi te liggéey moo gën a rëy moo ëpp barke mboolem yonent yi jibril alayhi salaam tam indi gi mu indi alquran mu jóge ci yàlla ñëw seydinaa mohamad saa salaam tax na moom seydinaa mohamad tax na moom seydinaa jibril alayhi salaam boo leen malaaka yi moo leen gën moo leen jiitu moo leen gën a màgg léegi bés guddi gi mu wàcc muy guddi gu lay tax na mboolem guddi yëpp moom euh, leetu xadar moo ci gën a màgg mboolem guddi yi mooy euh, afdalu layli moo gën ci guddi yi kon alxuraan bokk na ci yi nga xam ne day ñoddi barke day tax nit ki am fatxu ci barke al miftaaxu saani mooy deuxième bi nga xam ne tam bokk na ci maye barke muy wax bismillaahi rahmaani rahim wa ak maanaam di wax bismillaahi rahmaani rahim ak di tudd yàlla ndax kullu kalaam ibnu aadama alay laa loxo eh, ilaa amran bin mahruf wa nahya anil munkar wa zikrullah akbar bépp làmmeñ boo xam ne bépp làmmeñ boo xam ne eh, li tënk koy tudd eh, maanaam bi ci gën mooy eh, di wax lu baax ak di ko tere di digle lu baax ak di tere lu bon ak tudd yàlla alay salaatu ak tudd yàlla kon bokk na ci yi nga xam ne day may barke tudd yàlla mu ne isa daxala rajulu baytihi fa zakarallahu taala hinda duxóoluxo ba hinda taxaami maanaam bu nit ki dee dugg ci kër balaa mu dugg na wax bismillahi rahmaani rahim ba hinda taxaami suy lekk itam na tudd yàlla mu ne bu ko defee rek seytaane du am wàll ci moom ndax seytaane day xañ nit ki barke lépp lu baax rek seytaane da koy xañ nit ki ba tax na bu ko nit ki defee rek seytaane du am ci moom wàll te bu amul ci moom wàll du ko mën a xañ barke léegi miftaaxu sa saalis sadaxoo maanaam bu ñetteel bi bokk na ci maye barke nee na sadaxatu mooy saraxe من أصحاب من أسباب البركة على البيت هي سبب بركة الكر نانا تصدقه خاصة آه، من دي سرحة ما نام دي سرحة من سرحة سر سرحة أمن بود مشينك مايلان فإنها تطفئ هذا بربي nit ki buy saraxe rek suñu borom day war a day fay merk suñu borom maanaam sànjak suñu borom bu nit ki dee saraxe rek suñu borom day tax suñu borom du mer ci moom waaw suñu borom du ko jéppi du ko xañ da koy bëgg da koy da koy da koy da koy da koy yërëm miftaaxu raabix siratu raxmi buntu ñeenteel bi moy dox ak mbok wan akhbarna nabi salatu laahi alayhi wa salam mu xibaar nañu mom yonent saa sallam ne ana siratu rahman naka loolu ñu wax jokk mbok jekku si yag seeti sa mbok wala mu tawon nga seeti ko jali ko mu soxlo mu soxlo mu soxlo wala gis la ak yooyu yëpp loolu dox mbok dal dafa yaatu mu ne siratu rahmi wa xusnul xalqi wa xusnul xulqi mu ne dox mbokk ak rafet jikko wa xusnul jawaari tazuru fi risq wa tatilul xumuur nee na dox mbokk ak rafet jikko ak rafetal jëmee ci dëkkaale yi nee na dafay yokk wërsëg day guddal euh, fan yépp koo xam ne yaa ngi dox mbokk di rafetal si jikko rafetal di jëmee tam ci say dëkkandoo euh, wa xusnul jawaari ak tam euh, maanaam du rafetal jëmee sa jikko waaye xusnul jawaari mooy maanaam euh, rafetal say say jëf rek day tekki mu ne tazudu fi risque wa tatilu mu ne day may wërsëg day guddal tam aw fan léegi miftaaxu xaamis mooy buntu juróomeel bi tabkiiri fi tabiski mooy jóg njël di sàkku wërsëg jaa fil xadis sharif buuraka li ummati fi bukkooriha jóg leen di sàkku wërsëg njël maanaam teel jóg dem liggéeyi ut loo am nee loolu bokk na ci maye itam wërsëg alxuroo jëli tale bi risque baakiran jug sàkk wërsëg ci teel léegi ñu ñëw ci miftaaxu saadis mooy buntu juróom benneel bi ci maye wërsëg mooy ihaamatu salaat Euh, julli ci waxtu yi maanaam julli euh, julli iqaamat salaat li waxtu julli ci waxtu yi nga xam ne moom lañ yoonal xaala taala xaalaaw taala waa am la ko ëxlu salaati nee diggal na ñuy julli wastabir alayha laa nasaluka risqan ñi nga xam ne ñoo ngi julli tey muñ Euh, du ñu ñaan wërsëg lu dul ñun wërsëgal nañ leen wala axibatu lil muttaqin euh, ba pare itam loolu nga xam ne mooy mujj gu rafet moom yàlla moo ko am moo ko moo moo koy defal ñuy julli al miftaaxu saabix buntu juróom-ñaareel bi ci maye wërs euh, kii barke tawakkalu alallah taxa tawakkulahu mooy wakiilu ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala gën gi wakiilu ba sax exemplaire bi mu ci joxe ci picc yi bu ñu xëyee mu ne euh, ron na ci xadis li ma war a def fil xadis ron na ci xadis law tawakkaltu tawakkaltumu alallaahi xaqa tawakkulahu nee ne ki nga xam ne wakiilu na maanaam daal na ngeen wakkilu ci yàlla dëgg-dëgg wakkilu ki nga xam ne def na loolu la razaqakum kama yarzuqu tayr suñu borom dana ko wërsëgal comme na eh, mu wërsëgalee picc yi waaw comme ni mu wërsëgalee picc yi taxaw du ximaasa mu ne bu ñu xëyee dem di wuti seen biir dara du ci nekk maanaam biir boo xam ne ni day vide maanaam xiif la ñuy xeyaale wataruxu bitana waaye bu ñu dee ñibbisi fekk dem nañ wëri lu ñu lekk seen biir day fees dell ndax picc dafa wakkilu bu xëyee rek génn na dem uuti nit ñi bu ñu wakkiloon ni picc nag maanaam ku xëy dem uuti ala kulli xaal suñu borom du la neenam dina la jox loo dundee loo xam ne soo feebaree fajoo ko loo mën a suturloo loolu moom yàlla noppi na ci wërsëgu jaam ñi ba tax sëñ Saliou euh, radiyallahu anhu daana wax naan nit ñi nit nit ñaari biir la am biir jëmmam ak biir bàmmeel biir jëm minu biiru jëmmam bu mu ko yitteel ndax yàlla noppi na si lim maanaam ci lim ciy def na ko biir bàmmeel yitteel lu mu jëful du fekk loolu daan na ko wax kon nit na nit ñi euh, nañ xam ne yàlla noppe na ci wërsëgi yi nit ki li war a am dina ko am ala xaalin léegi al miftaaxu saamin buntu juróom ñaareel ñaareel bi juróom-ñetteel bi mooy al musaalatu al muwaasalatu istifaar mooy di def istifaar yooyu moom mbokk na ci yi nga xam day day dundal day barkeel uh, wërsëg ba pare da koy maye. Uh, nee nañ man laazima al istifaara jaxalaxaloo min kulli dayhin maxrajan képp koo xam ne uh, yaa ngi def istifaar heure soo amee jafe-jafe suñu borom dala ci génne man laazima al istifaar jaallahu lahu min kulli diihin mahrajan eur boo amee jafe-jafe da nga am génnuwaay moo xam jafe-jafe bu mu mën doon soo def istifaar rek bu jafe-jafe bi ñëwee rek suñu borom génne la ci moo xam da nga luyee ci kër di xalaat ne weeru dee wu nekk mën naa jafe loo fayee boo dee istifaar da yomb moo xam danga bëgg ay am ay doom soo dee histoire dalay yomb moo xam dangaa bëgg a tukki di lijjanti ay kayit soo def istifaar daf lay yomb moo xam dangaa bëgg eh, li ngay liggéey suñu borom ubbi ci bari istifaar lay yomb mu ne wa min kulli hamin farajan heure soo jàqee rek soo def istifaar njàqaraw lay day deñ mu ne wa razaqahu min xaysu laa yaxtasib soo dee istighfar suñu borom dana lay wërsëgal loo xam ne loo xam sax nu mu toll doo ko mën a xisaab ci bëri kon loolu moo tëj euh, yi ñu woon ci maye barke ndax euh, barke comme ni ma ko tàmbalee ci njëlbeen bi rek jundun min junudi laa euh, soldat la soldat suñu borom yi yàlla nag ay soldaaram moom malaaka yi bu maanaam dafa leen di tàggat ni mu tàggatee comme comme maanaam bu dee bu ñu waxee soldaar comme ni mu tàggatee malaaka yi loolu ñu ci jublu rek mun a yursaluhu liman yashaa moo koy yónnee ko soob ci jaamam yi fii saa xalaat fil maal kasratuhu su ko defee sa alal mu bëri wa fil walad asratuhu su ko defee sa njaboot lu baax wa fil jismi xuwatoo bu ko defee sa jëmm dangay amee kàttan wa fil waxtu umratuhu soo ko defee sa waxtu tam maanaam sa waxtu yëpp da nga koy jëf ci lu baax wa fil xal bi asxattahu su ko defee sa xol sa loolu lañ indiwoon woon tey ci di ko di ko dinañ ko baaxee ci bunt yi nga xam ne maanaam day ubbi barke ba tey itam ma bëggoon ko defaa tam ci version français comme ni ma ko indee ci version wolof bi moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj